docteur bëriwul mais ah. nañu wax tuuti ci campagne bi également. waaw ñëwaat ci ci parce que defe naa le 27 lañ ko lancé dimanche ni ki démb la woon. waaw euh, gis nañu dañu ubbi affaire bi tak daanaka violence bi commencé déjà la violence verbale on nous dit même qu'à travers euh, cette violence là. Ah. Euh, la nuit dernière le siège de Taxawu Sénégal a été incendié dañ ko taal ñu ne ay nit ñoom ñoo fa ñëw vers 3 heures du matin làkk t-shirt yi nga xam ne moom la ñu waroon campagne yooyu yëpp alors. nga bokk si ñi nga xam ne dañu war a campagne en tout cas fii ci capitale bi département de Dakar ñeneen ñi nekk à l'intérieur du pays quarante et une listes yu mel noonu commencé am dès le premier jour on voit déjà ay écart de langage ki ci mel ni Abass Fall bokk ci euh, parti au pouvoir Pastef ne tey jii nii coup contre lay doon dent pour dent œil pour œil pour dent bu ngeen di ñëw tey ñëw leen ak seen euh, paaka seen i jaas yi yu nu mel mu mel ni vraiment am na loo xam ne gis nañ ko. lu xaw a appel boobu nag ñu ne sax appel boobu moo waral mais nga nekk acteur war a nekk su le terrain di gis loolu ban njàngat nga ci am. bon euh, dama koy naqarlu dama koy regretter euh, parce que li nga xam ni amoon na fi bële en deux mille vingt et un hmm. ñaanuñu muy continuer te wattaqu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa lu ñu yàlla jàngal. Hmm. nañu moytu fitna yi nga xam ne ñun ñoo koy créer suñu bopp pour lan. Hmm. pour ay affaire ay poste daf ko jarul. bu ko jarul. Mhm. léegi nag euh, ku rendi mhm. ci ci deret bi sa sa sa loxo lay tax. du dëgg. Mhm. képp koo xam ne da ngay oote violence. su fekkente ne ministère ministre de l'intérieur mënu si dara. su fekkee ne dañoo jàpp ni en période électorale da nga am une immunité de tuer. nax nga sa bopp. ñun dundoon nañ ko. mooy en 93. si ouais. je ma rappelle pas. si mm -hmm. si si je me je me rappelle. Mm -hmm. avec le pur. Mhm. amoon na euh, kii non Moustarchidine wala Moustarchidaat amoon mhm. na événement bu bon bu amoon. Mhm. sept nit dee ci. sept policiers dee ci. dans l' exercice de leur fonction. Ouais. loolu c' un problème. donc maa ngi ñaan ñi nga xam ne noo nekk ci jàng ci kii politique bi. ñu bàyyi affaire rayante man problème boobu laa amoon. parce que violence bi fi amoon. ba mën xamatuma ku am dëgg ak ku am kuy fen mhm. ba ma jàpp ni damay téye sama loxo dinaa wax kii mag yi mhm. bàyyi li ngay def naa wax Sonko modère ton langage mhm. noonu laa doon def ñu tuddee ma le grand patriote donc fu mu nekk nii maa ngi ci langue bi David mi ngi ci langue bi léegi nag maa ngi ñaan ñu bàyyi xeex bi ñu bàyyi rayante bi waaye nag dañu xam ni yàlla benn mbir la la may mhm. muy self défense c'est ton droit le plus absolu mhm. self défense mhm. kooku nag ñu ngi ñaan yàlla gars yi dalal seen xel na seen xel dellusi ñu def une campagne d'idées comme que dañ doon oote débat nañ indi débat bi mais jàpp fi ay éclat lakk kër yi amatul sens génn paak ak jaas yooyu dépassé nañ loolu ñun yaakaaroon nañ léegi ci transfor état de transformation structurelle lañ nekk de la mm-hmm. société mm-hmm. ñu déconstruire le système mi nga xam ne moom lañ doon xeex bu yàgg mm-hmm. kon système boobu ñu bëggoon déconstruire moom foofu la ñu war a jublu nan lañ ci jubloo dem élection législative su fekkente ne ñoom ñoo comme ni président euh, Bassirou Diomaye wax su fekkente ne donte ne yow voté loo ma euh, euh, man moom il est le président de tous les Sénégalais man damay wax Sonko il est le président de tous les sénégalais. Mhm. le président de fait de tous les sénégalais. Mhm. kon na dellu na bàyyi. Mhm. na bàyyi di nappaate quoi. <laughs> na bàyyi di nappaate. <laughs> merci beaucoup docteur Ousmane Diallo temps bi jeex na ma bàyyi nga prononcer le dernier message. waaw kon euh, di sant yàlla bu baax. suñu programme bi. bokk na ci tamit administra defaraat administration bi. bokk na ci euh, xeexal travailleurs yi parce que ay di vacataires yooyu dañ ko war a dindi. bokk na ci li ëpp solo. mooy rompre suñu relation diplomatique ak Israël mais peut-être incha allah dinañ occasion. Mhm. pour gën koo. ñu euh, ñëwaat ci loolu ci campagne ci waxtaan incha allah. Mhm. merci beaucoup di la sant di la gërëm docteur Ousmane Diallo nekk. tête de liste de la coalition And Liggéey Sénégal bokk ci parti ensemble pour le Sénégal te Mamadou Saliou Sow dirigé ko ci élection législative ñu dëgmal le 17 novembre 2024 mbokk yi ñu ngi leen di jox dig daje ci beneen entretien spécial fii ci Sénégal 7 jaa ngeen jëf. merci beaucoup. beaucoup. beaucoup. merci beaucoup.